plaisir est de vous servir. Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue dans votre émission L'homme de la semaine, l'émission qui est au suivi de toutes les générations sur Wassare TV, la télévision qui a décampé le décor merveilleusement bien partout au Sénégal et lui-même à travers le monde. Comme nous l'avons à chaque fois, nous avons fait mais tey benn waay la boo xam ne ndaanaan la si biir ndaanaan yi foo ko woo mu daal di lay wuyu lamb théâtre lamb lutte ak extra macha allah damay bañ baa di bàyyi di catu donc ñu leen di ziar bu baax a baax si weeru koor bi di leen baalu àq encore une fois waaye tey ndaanaan bii lañ dara xarit xool la ma sama ndaanaan bi avant ngeen di wax du ma wax turam damay bàyyi xarit jël ko <laughs> ndamoon nañ la. delloo ziar biir seen di nuyu mbokku internet wasaare nu yëpp nuy sa cadre Khalil di nuyu mbokku àdduna bi di nuyu yi. di baalu ñëpp àq di baal ñëpp tamit àq di wax ne boo xoolee li si li nga xamante ne mooy ci koor gi boo xoolee actuellement ñu ngi si ay duggu ci weer yi nga xamante ne nag muy si fan yi nga xamante ay fanu njéggal la ak fanu yërmande yi mais lépp lu ñaan ci weeru koor gi rek yàlla ko si yàlla suñu borom def tawféex yàlla suñu borom def ci jàmm ak salaam defal ko àdduna bi defal ko tamit wasaare nuyu tamit faa baax a baax a baax ak Basiru sama xarit di siyaare bu baax a baax a baax a baax nuyu a baax nit ku ah, tamit seen yow baax nga wax dëgg yàlla ku sa liggéey sa nañ yaa ngi def liggéey bi yoon xam nga man maa ngi apprécier quoi ni may apprécier jàpp jàpp naa bari noonu la ñuy apprécier parce que da ngay def liggéey solo lool ci réew mi. <laughs> merci beaucoup Abou ça c'est mon ami c'est normal damay sànni fleur mais ayuguma alors Abou dañ ciy wax dañuy waxtaan loo xam ne moo doon lii di actualité xam nga ni ku ne actualité wax wàllu làmb boo nee làmb fu mu toll da ngay tudd directement kii di Ada Fass mm-hmm. yow nag kenn du la wax kan mooy Ada Fass mm-hmm. ba léegi mm-hmm. alors tey jii nga balaa ñuy wax sa problème si biir bi di xusu baax a baax noo gisee problème bi. waa ni ma gisee problème mu Ada Fass que mooy Ada mbër la ni mbër yëpp quoi mais dafa am lu Ada Fass manqué tuuti Ada dafa manqué ay kilifa manqué kilifa gi mu manqué kilifa mooy tax muy dugg si teexa doona yi baree baree baree Ada Fass même pas un mois nga jógee si défaite sa contre ak Zarko ñu toog si quelque temps nga takk jabar coola topp la mais man dama àndoon ak moom si première fois boobu ba ñu waxee man leen noo xale la mbër dafa war a am jabar war am hygiène de vie mbër bu amee jabar day normal yaa ngi comprendre parce que tey temps bi ngay am di ko jox ci di ko fournir si mbedd meeg di dox yi bu amee jabar doo temps boobu doo toog amati fréquentation day wàññeeku dox ci yenn milieu day wàññeeku ma ma d' accord ci loolu ma ne ah kon booy mu ngi bëgg def mu ngi am leneen lu muy suivre ci carrière am même ma toog ba ci ma toog ba ci yàgg dégg ñu ne Ada takk na deuxième femme. ma ne pourquoi bi est-ce que naru sànku kereeru Ada Fass xam nga jigéen jigéen la mu takk benn booy bu ñu wax ni jara jara xale la boo xamante ne jigéen la mu tamit se rek la bëgg bu see góor bu ko a takk dem sëy sëy ak moom. xam nga ko xale xale bi jigéen. ah jara xaw euh, xaw ma ko a 100 pour cent mais danaa ko daanaa ko fara doon gis si réseaux sociaux yi parce que jara il paraît que ne dafa mel am na doom yaa ngi mais yooyu yëpp garaawut mais Ada takk deuxième femme dafa dafa teel ci xale la Arafas âge vingt cinq ans la am boo xoolee deux mille dix huit deux mille dix neuf ba deux mille vingt ba ma koy jël ay mu nekk ci gëli booy nekk lu ndaw buy wax sa wax du sigi xool doomu Adama Arafas six bi da koo sonal six daal nu koy téewee man Arafas dama ko bëgg de dama ko bëgg sama xool parce que dafa am bët may xool ci moom yaa ngi comprendre dafa ñëw fekk dara amutoon mu def fa dara. yaa ngi ko mën a xaw ma dañ koo liggéey xaw ma dañ yàq mais Ada Fass mais mais man problème le problème qui se mooy ñu bëri la naan Ada Fass war woon takk jabar Ada Fass woon takk ñaareel mais est-ce que takku ñaareel gënul am sa benn aawa nekkul Sénégal nga topp si xale jigéen di taxawaalu. waaw loolu sax xam nga fii mbër yëpp ci làmb mbër yëpp nag laa wax mbër bu ci nekk ci guddi bi yaa ngi ci bu gàtt bi yaa ngi comprendre man sa ñaawaat ci yàlla benn mbër laa xam ne moom ne ci fii ci làmb Moussa Ndoye bu yaraax man mën naa ko gëm naa ne amul nekkul si du caaxaan parce que dama jis Moussa Ndoye du caaxaan bàyyi ma ñoon ñaañoon parce que dafa damaa gis quoi waaw damaa gis man doxkatu guddi laa nitu milliard fu ne laay dugg mais bari na fu may dugg di fa tase ak yéen a mbëri mais barke Cheikhul Khadim musuma dajeeg Baye Mandione millier musuma dajeeg Moussa Ndoye bu yaraax millier guy gi mbër guy gi bu géej waay guy gi musuma daje moom millier guy gi barke Seydina benn yoon la mos a gis te bis ma ko gis ay ay ay woon cant Aliou Afia moo doon def ay cant Sorano tuddee ko Ablaye Diop xaas dañoo Ablaye Diop xaas invité ñoom guy gi c'est la première fois ma daje guy gi Sorano ñooñu mën naa wa ni ci yàlla duñu ay mbër yam caa mais Ada Fass dafa war xool ci ñoom Balla Gaye xool Siteu Siteu ak Ada Fass coow téeméer yoon ci lamb Balla Gaye moo ëpp coow Ada Fass téeméer yoon ci làmb Modou Lo et cetera keneen Modou Lo am ñaar ñaari jabar la yor est-ce que coow li amee woon na ni mais da koo teg ci norme fu mu ko war a la amee mais dafa jotut dara bu jotut xoolal waaye waaye jërul gasam lu ñor lu ñor wadd mais faay bi est-ce que si moom la parce que bu ñu xoolee Ada Fass coowam du léegi ñu bëri doon wax naan Arafat dafa nekk mbër moo xam ne à chaque fois mu ngi si biir TikTok yi mu ngi si biir mbedd yi alors est-ce foofu noonu la maanaam lii di estafam njëkkee def erreur mais Arafat du coow du Arafat kese mais ñu ko wër la ñoo ko bàyyi si mu nekkee. dafa sangoo bayre bu mu attanut. waaw dafa sangoo bayre bu mu attanut. Arafat bi mu yor attanu ko nañu wante dëgg. non attanu bayre bi day am day des fois ni day jël bayre bam des fois du ko attan day dal ay mbër yu baree bari ci làmb bayre bi Arafat yor Arafat attanu bayre boobu. yaa ngi dañ koy mën a téye nga mën koo tenir arafas pourtant am na kàngam yi ànd ak moom nag lamin LP ndaanaan la dama xamul tax muy seetaan booy bi lamin LP ndaanaan la ku mën a encadrer nit la booy bu yaru la ku xam àdduna la mais mbër ba leen nekkee ak moom staff bu mbër bi diriger mbër dañ koy diriger. mais mbër bu la diriger def lu def lu ko neex mais xëy na peut-être ñoom dafa am lu ñu yaakaar ci Arafas mun a Arafas dinañ diriger mais dégg naa nag ñu ne coow lii nekkul coow ñaareel bi gars yi ñu dañ ko jox xaalis mu jënd ay jakarta meek waa ko ñu ña ko ñu ñaareel si foofu laa bëggoon ñëw sax est-ce que loolu maanaam ñun ñu ngi koy dégg ñu naan benn policier moo ko jox xaalis ñu naan da nga ko jox ay moto mu daal di ko jox waa parcelle est-ce que loolu dëgg la ah, la def mu waral booy coow li bari xam nga fii kii joxe xaalis xam nañ ko di joxaat ay moto di jënd booy xam nañ ko. yaa ngi ko war bu ma def man bu waaw bu ma def ay diffamation tudd tudd jàmbur mais ki koy joxe xam nañ ko moo jël ay millions dugal na ko ci gox yi bari fii ci town bi pour lan waaw kaay la ñu jox leen xaalis booy ngeen def lii lii no no non nañ arrêté yooyu booy ji nguur day jeex nguur yàlla si borom rek moo dul jeex yaa ngi comprendre mais nguur gi nii dafa jeex. mais problème bi mooy tamit bu ñu ñëwaatee maanaam si si si à part si moto yooyu noonu ba booy yi génn commencé yàq toj euh, lii oto Zarko affaire yooyu tamit coow daal dafa mélangé wu. jabar ji moto yi tey ji ñu toog ba saa gisaat Ada Fass fu mu toll nii kenn dégg ko kenn gis ko est-ce que mën nga ñu wax ne Ada Fass fu mu nekk exactement. Ada Fass ah actuellement mu ngi leen de meer. waaw mu ngi dem na mu ngi ci affaire am ah. parce que voilà lu nekk lu bari la ñu mën a wax si caméra yi mais. Sénégal man aada sama aada la quoi dama ko bëgg booy boobu. barki Seydina Mohamed mosuma bëgg mbër nag ni Ada Fass dama ko bëggee bëgg xam nga dama bëgg ko parce que dañu am femme ñoo fa yem jikko quoi dañuy bañ quoi jàmbaar la nag barki Seydina dafa nekk booy bu jàmbaaree mais aada man xa maa ko doon xaar ci leneen am man amoon naa chance ne Moustapha Guèye ñëwaat na ci lambu. lang maane ah faga un faga deux Fass na Gris Bordeaux lu ñu mos a pet ci Fass amaan na xoolal phénomène bu mel ne Ada Fass Fass dootu fa amati te Ada Fass tollu lëmbër ñi Fass Serigne Ndiaye moo ko ëpp keneen ak keneen ñu ko ëpp anti jaar na fi anti bu fas mais moom dafa ñëw moom Ada Fass jël coowal fas yor lambu ambiance yëngal lambu lambu yëpp ne Ada Fass. mais est ce que nii perte ko parce que boo gisee ñu naan même mbër yi mu dëkkal sax ay ñoom Diène Kairé ñoom euh, ñoom Serigne Ndiaye du ànd ñoom mais maanaam mbëri ñoo xam ne bokk nekkuñ faas ñoom lay àndal di nga naan taay ñu naan Balla Gaye lay lay ëpp <laughs> lu muy esoti mm-hmm. euh, beneen booy bi sama booy bu mbëre bi. Mm-hmm. Ah, waaye booy bëri mbooloo mi rek. te mu ngor booy ngor bi. kii euh, si tëbu ngor waaw si tëbu ngor gaynam la mm-hmm. waaw si tëbu ngor gaynu gaa yi nu Ada Fass la lu yàgg dëgg la yaa ngi comprendre. mais balaa ngay laax lekk da laax jaay balaa laax lekk. mun na tamit xaritoo ak Balla Gaye parce que bala Gaye nit ku baax la Balla Gaye euh, Ada Fass sama gën a tuuti ci ay mbër yoo xamante boo xoolee Balla Gaye nit ku ubbeeku dafa bëgg doomu adama xam nga te peut-être xëy na am na mi gis ci booy bi ñoom Balla Gaye dañuy bàyyi lamb quoi lamb après booy ñoo fi des léegi ñoom Balla Gaye dañuy invité loolu Balla Gaye te ñoo war a bëre excité na ma Sène ñoo war a bëre Balla Gaye dafa baax barki Serigne Touba ba ba wër doomu aadama bu baax xol bu rafet oyof yéwén ci doomu aadama yi jàppal Balla Gaye deful dara muy dara Balla Gaye am na ñu ko yor fii ay millions yi millions mosul dégg bala Gaye onk wax ci billaay wala am na ñu ko yor xaalis bu bari mosul dégg Balla Gaye wax ci ku bari sutura ku bari ngor mooy Balla Gaye billaay wallahi li daal di soit si su su lu war a tax ñi daal di indi waxtaan bi muy maanaam kii di Ada Fass maintenant léegi carrière Ada Fass yow fu mu toll nii noo gisee si jàpp ngeen peut-être mun na fi jaaree fay wala nu muy def mooy daal di tuubaat fexe ba ni regroupé waat mbooloo mooy mbooloo ma waa waa koñam fan sa meeg ay mbokkam. ma xamal lam bañ bañ bëgg la de booy mun booy dañuy soobal nii rek mais Ada Fass bu takkoon tey tey ngeen wut estat oh, booy kenn du fa jut non deret la quoi Fass xam naa Fass waaw Fass deret mooy seen deret mooy yëngu nag. Fass mosul bëgg ku ko yab waaw maan Fass dañu mos am fulla am fayda am ngor waaw Fass yàlla ma leen bindee noonu Fass ay jàmbaar lañ mosuñu bëgg dem xare ñàkk ko Fass noonu lañ mel ay gaynde ay tigre fa dëkk léegi ñoom dañuy dañuy siisu dañoo bëggal booy bi lu baax rek waaw Ada Fass dina comprendre booy dañoo bëgg lu baax ci moom yaa ngi comprendre mais booy fenn laa leen balaa mi booy Fass yi waru ñoon toj oto Zarko dañoo après lamb jeex na Zarko Ada Fass ay doomu day lañu war nañ demalante muy bànneex ak nakara ah. Zarko Siteu bëri nañ moo ëppan coko combat Ada Fass bi Siteu daan Zarko ba ba Zarko kër di xew Siteu fa njëkk mais loolu mooy àdduna mais loolu mooy dëgg Eumeu Sène Balla Gaye bëri nañu ah tey tey tey Balla Gaye bu ko dara daloon tey ñaan ma ko yàlla tey Eumeu Sène kenn ko fa jiitu ay doomu ndey lañu te bu arbitre bi bakkan la ñuy joxante ñoom ñaar de Balla Gaye genn gi ne ko ci moom mu ngi ci moom Eumeu Sène tamit du bàyyi du bëgg ba ba Boy Niang daan na Balla ñëw daan ma ci làmb du bëgg loolu ci àdduna waaw. mais noo gisee ay coacham ak man des fois dama naan exercice bi sax ay mbokkam yëg nañ ko parce que koo wax mun la def ñu bett ànduñu si. Arafaas musul def li mbokkam yëg même bii passé mbokkam yëguñu ko même seen bii passé ay mbokkam yëguñu ko ah mooy wane dafa manqué staff xale la mais dafa jàpp ne mooy kilifaay boppam te ko xoolal ku amul kilifa ji ne doon sa kilifa. te ko amul kilifa day day ku amul wéeruwaay da ngay da ngay bu mu wax. Ada Fass na dellu si waat ci ginnaaw na defaraat toogaayam xam nga mun na bu ko defee ñeenti jabar mais na réglé casé defar population peuple bu koy top ñu koy topp joxu leen dërëm mais couleur bi muy défendre la ñooñu tamit di défendre mooy couleuru Fass bi Fass man dañoo bëgg Fass man kenn gënu maa bëgg Géejawaay man Géejawaay laa dëkk de. man damaa bëgg géejawaay man damaa gëm géejawaay barki Serigne Touba lu ma am géejawaay moom ko gënal sama àdduna dama gëm sama waa samay mbëru dëkk man dama gëm ñoom Balla Gaye gëm guy gëm ay ñoom Lac de man ñoom laa am ñoom laa bokkal dëkk damel naa sopp lool bëgg leen mais cadre cadre sport bi ñuy def nag seen liggéey bi ñuy def damaa neutre faralu ma leen faralu ma ki ñu bëree que le meilleur ci biir terrain bi yaa ngi comprendre mais damay am naa droit nag bëgg sama gox yonent bi sallallahu alayhi wasallam nee na bëgg si jaamu yàlla bokk premier jaamu yàlla fa la njëkkee te yow seen ko bëggoon dugg maris sakaase fa nga jaay sa bakkan man tamit ko bëgg dugg géej fii tas ko nga sakaase fi ma jaayal sama ruu waaw